bokk Cheikh Tidiane Ba sa la bokk Seydi Gassama sa la bokk Sadio Mané sa la bokk Abdoulaye Diouf Sarr sa la bokk Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Mbaye Sy Mansour président Mbagnick Diop Cheikh Mouhamadou Ibrahima Niass Monseigneur Benjamin Ndiaye Serigne Mouhamadou Makhtar Laye Edouard Mendy Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade Guy Marius Sagna Sokhna Marième Faye Sall El Hadji Mansour Mbaye njiitu réew mi di président Macky Sall Aliou Cissé ak ñeneen ak ñeneen maanaam cinquante personnalités yi gën a siiw ma ngi ci a kaay gi de la xëy dañu xibaar naan ñu manifestation bi nga xam ne waaye ana mar ak waa Francfrancais ñoom ñoo ko bëgg a organiser autorisé nañ leen ko tey jii la yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ko dëggal lii quotidien xëy duñu xibaar naan ñu marche boobee bu ñu ko autorisé mu Ndiaye Cissé ak Alioune ñoo ko waral ndax ñoom ñoo waxtaan ak ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi di Félix Antoine Diome yéen a kaay la Tribune tey jii ci àjjuma ji ne ñoo ci participer dinañu bëri ak coalition yi nga xam ne ñoom tim ne danañu ko fekkee yéen kaay gi di la mandat xëy dañu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall dafa bëgg a toog ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi ak société civile bi ngir nag ñu waxtaane lépp loo xamante ni pétrole la ak gaz ci réew mi waaye nag loolee waaye yeewu askan wi ñoom Khalifa Ababacar Sall ak Déthié Fall dañoo lànk ba tëdd sa naaj waa yéen gi di réew mi quotidien na waaye yeewu askan wi ñoom nag nee nañu danañu porte plainte Jibril Ngoma foo Issa de fou waaye tamit danañu ki nga xam ne mooy Macky Sall danañu ko yóbbu fa mbaxana doonee benn nee nañu sax danañu saisir waaye ñu ne carte d'identité nii nga xam ne moom lañu koy joxe am na nag ak càcc goo xamante ni ñoo ngi ko say mébét yéen a kaay gii di las xëy di ñu xibaar naan ñu wàllum corruption wàllum guerre am na ci ministère bi ñu dénk wàllum emploi ak wàllum tàggato nee ma ca Dame Diop yéen a kaay gi ne na lu jëm nag ci wàllum démarrage procès bi nga xam ne aju na ci construction ak équipement lycée professionnel yu Sénégal journal bi nena na jamono ji nag signature ministre Dame Diop rek la ñuy xaar promoteur bi moom nag dina xaar la ko waral bokk na ci nee na ay jegeñaale Dame Diop ñoo ko laaj lu toll ci fukk ci ay millions ngir nag ministre bi signé loolee yéen kaay gi de Le Quotidien ak Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Ousmane Chimère Diouf mi nga xam ne moo jiite magistrat yu Sénégal sortie bu njëkk ni démb la woon wax na ci indépendance justice bi nee na nag bëri na ñoo xam ne ñoo ngi yàq deru justice bi waaye nag loolee seen gis-gis la waaye nag la ñu njortu ak la am wuute naan daat nay wax ci li nga xam ne mooy conseil supérieur de la magistrature nee na nag njiitu réew mi di président ko fekkee loolee yàqul dara ci seenub liggéey yéen kaay gi di Sud Quotidien magistrat bi daat nay dalal nag xelu askan wi ci lu jëm ci élection yoo xam ne yu leer naa ñu lay doon journal bi di Les Échos nee na yu Sénégal daan wax ci lu jëm ci mbiri Souleymane Téliko ci affectation bi ñu ko jëlee Thiès yóbbu ko Tamba ki nga xam ne moo jiite jamono ji union des magistrats yu Sénégal nee na Souleymane Téliko maanaam jokkoowul ak ñoom yéen a kaay gii di l'info xëy ñu xibaar naan tojaange yi nga xam ne moom la ñu doon wax sa postu Abdoulaye Bibi mi ko jiite génn na wax na daan nay taxal nag ñi nga xam ne maanaam ñoom la fa wuutu yéen a kaay gii di laas xëy ci lu jëm ci wàllum yi opposition bi déposé nañ proposition de loi yéenekaay gi di Vox Populi xëy wax ci lu jëm ci trafic passeport diplomatique yi niki démb am na nag ay agent ministère des affaires étrangères ak ay gendarme yoo xam ne déglu nañu leen sa dikk jamono ji dañu leen garde à vue waaye nag gendarme yi ak ñi nga xam ne ay civil lañu kenn ku nekk da doon taqal boppam yéenekaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Assane Samba mu xëy jël xalimaam wax ci recrutement yi nga xam ne am na ci réew mi xam ne moo sonal nguurug Sénégal ndax bëri na ñoo xam ne amuñu benn njëriñ dafañ leen yóbboo l'observateur nee na Macky Sall nag ngeen gisee mu mer